ñu leen waxee ñoo ngi fii ba léegi Moussa Ba. waaw salaamaaleykum Dramé ça va. ñu ngi si àq ngeen def naka taw fexe. waaw sant yàlla alhamdulilah. bon tey euh, def li nga xam ne mooy suñu acte moo di Medina bi jafe ndox bi nga xamante ni yàgg na fi lool ñu yàgg ñun di ci wax ñun ci suñu bopp. Mm-hmm. Euh, tungu ni teew ñuy natt ci ëkk. nuy wanteel ak ñu lay bàyyi xel ngay expliquer ñu naka la demee dëgg-dëgg. waaw sëñ Mansour euh, maa lay nuyu. di la gërëm di la sant. te wax dëgg yàlla di nuyu ëllëg ñi nga xamante ni ñu ngi xoolaan si vidéo bi ñu ñëpp di leen jàmm yàlla jàmm yàgg yi Sénégal mm-hmm. yàlla dimbale état bi fi ne yàlla dimbale leen ci mébét yi ñu fi def ñu fi ak ay at yàlla te suñu borom euh, naatal naatal lépp jàppale leen ci seen liggéey mm-hmm. jub ak jubanti bi ñuy wax ak lépp yàlla def ci jàmm. Mm-hmm. Euh, sëñ Mansour fii mooy Médina Gouye c'est un village boo xam ne mi ngi nekk ci commune Maka Yop dafa yore forage. forage bi nag dafa paan ça fait quatre ans forage bi nag paan bi mooy teen bi parce que un forage mooy teen mais définition forage en en quelque sorte mooy maanaam bu ñu bu ñu laajee quest forage da nga naan c'est système d'adduction en eau potable système d'adduction en eau potable yoo xam ne c'est composé de trois matières dafa am lu wax exore mooy teen bi fi ndox mi génnee am li ñuy wax stockage mooy château do am lu ñuy wax réseau yàlla def na nag stockage bi mooy am na ñaari château do cent mètres cubes ak cinquante mètres cubes c'est fonctionnel amul benn problème am nañ exor bi am nañ courant courant baa ngi fi cabine a ngi fi chambre ngi fi lépp a ngi fi enceinte bi lépp a ngi fi sunu seul problème mooy teen bi mooy le puits puits bi dafa am éboulement mu mu fat suuf si fatt ko moo dañ ko utiliser ñu soxla beneen teen boo xamante ni dañ koy gas turee ko ndox mi génn société bi ñu wax Flexo mooy yore exploitation bi dana ci projet pompe ñu naan mhm. c'est notre seul problème monsieur Dramé le problème de Médina Gouye mhm. le forage de Médina Gouye son seul problème mooy problème mu teen bi mooy le puits mooy le forage mais forage bi mu ngi fi. mais forage bi mu ngi fii amul benn jafe-jafe amul benn jafe-jafe réseau bi c'est fonctionnel dëkk bi foo dem les quatre coins du village mhm. boo ci dem à la limite de chaque coin y a un tuyau 90 bu ñu fa tëral ci biir amul kër gi moom daal si gàttal village bi amul kër gu amul ko amul amul robinet. ok bi wuñ ko mosee mu jee recensé amul benn kër boo xam ne amul amul ñàkkul robinet. amut. ok n'est-ce pas bu ñëwee ci de forage bi di see barbalé. te gis nga ko fu mu pour bañ forage bi am ñaax wala yàqu gis nga ko dama ko exploiter def fi samay kànje def fi samay moins pour mën a forage parce que moo ko bàyyi woon ma fi ñëw kon tey jii doo mën a dugg di wax mën a am nañ fi cabine baax boo xam ne bâtiment boo xam ne c'est bien fait courant banque fi dama wàcce disjoncteur bi sax uniquement pour di bañ a yàq énergie comme dara fonctionne dama wàcce disjoncteur bi mais tey tey problème mu sëñ Diada jeex. du problème mu sëñ Diada rek jeex de monsieur Dramé. parce que problème mu Guérane dana jeex. problème mu zone nu Màkk yëpp ci problème ndox dina jeex. parce que Màkk yëpp moo fi forage bi nga xamante ni dafa dafa paralysé cinq douze villages. te kat seen pompe bi 40 mètres cubes lay génne par heure les techniciens bu ñu ma déggee mhm. dañ xam la ma wax. pompe forage bi pompe bi génne 40 mètres cubes par heure di di dox di dox ndox. douze village di village bu ñu ne au moins dañuy distance de deux kilomètres par deux kilomètres par trois kilomètres bu ñu nee ba digg noor transhumance yi ñëw nit ñi soxla ndox ñi war a tabax. ok jàmbali mel kon kon mën nañ wax ci gàttal que def na impact bu bëree bari parce que euh, ku wax ndox xam ne du yem ci naan mais ni nga ko junjee sànq. ñu bëree bëri seen xëy ci la nekkoon. Euh, seen xëy ci la nekkoon ci lan mooy que ne yàlla dafa def forage mu muy màkk yëpp. muy muy muy muy muy Médina Déggu yi même village yi nga xamante ni màkk yooyu dañ leen jox ndox dañ ciy dañ ciy def tegandaay mooy que ni da ngay ñëw dem def demande am sa benn parcelle nga léem ko xëcc ko def ci sa kii di di bay sa kaani sa jaxato sa pétinse monsieur Dramé mhm. fii avant ñuy paan amutoon lépp dërëm ñaari dërëm amutoon saadu saadu nag boo déggee nu saadu mooy que ne nga xëy sa war a dem sa toolu bopp doo mën a dem parce que sa kër amul dépense nga dem liggéey la nit mu fay la pour sa kër war a mën a lekk yooyu jeexoon na fi nit ñi commencé woon tabax parce que ñu doon di bay kaani di bay jaxato di bay lépp des millions ñoo fi daan dugg heure bii dañ naan dem ba dugub ñor bañ góob ko ba dugal ko doo gis jigéen bu dem bojj mais actuellement nii ren yërëm naa jigéen ñi daaw yi dama yërëm jigéen ñi ndaxte fu mu doon nii dugub ji buy ñor acca yàkkamti nañ ko nañ ko parce que fu mu ne amatuñ lenn ci luñ jàpp mu njëkk ba sa dugub day ñor nga dem jaay sa benn cent kilo kaani am mille cinq cent mil deux mille jaay sa benn cinquante kilo am sa am sa deux mille wala trois mille kooku xam nga ne da nga euh, nawet day jot ngay ji sa tool mhm. poosu cent mille wala deux cent mille kooku yaakaar naa ne liggéey du la jaaxal sa doom faju du la jaaxal lekk du la jaaxal mais yooyu yëpp amatu fi les autorités yi ci commune bi wala boog itam ci département bi est-ce que mbir mi yegg na ci ñoom ak itam yan taxawaay lañ ci mos a def. yegg gi moom. du ma ne werante wu ma ko yegg na ci ñoom. amul fu ñu ko jooyewut amul fu ñu ko waxee waxewut waaye en âme et conscience wax dëgg rek la yàlla suñu borom bëgg defuñ ci benn jéego. benn jéego man bu ma yëg defuñ ko ci. moom daal ku mel ni yow Mansour. yaa ngi ci góorgóorlu njëkk nga ci def benn reportage. wax dëgg yàlla même xale yi fii sax am nañ benn chaîne muy xam ne seen TV TV TV euh, seen ci aada. ñu ngi ci góorgóorlu. waaye à au niveau des autorités. surtout monsieur le maire ak yooyu wax dëgg fa ne yàlla. defuñ ci defuñ ci benn jéego. ok ci jamono yële nag daaw 2023. avant ñu bi ñu préparé élection présidentielle yi. ñëw nañ fi ba implanté fi ñuy def set doo ak teen. mais jusqu'à présent gisuñu leen. ok hmm. boobu ñu ngi ànd ak benn société chinoise xamuñ lu ko arrêté. ok waaw loolu moom am na. ok càkkutéef li lan lay doon. Euh, càkkutéef bi daal mooy. kenn li lay war a suuli. Mhm. comme tey jii toll na fii sëñ ci aada. Mhm. la commune Maka Yop li fi yeewoo ci doomu aadama. trois mille wala quatre mille personnes ñu ngi yeewoo fii mhm. waxaale wu ma jur gi nañu dimbali li lay war a suuli ñu dimbali ñu ci teen je lance un appel au président de la république je lance un appel au premier ministre je lance un appel au ministre de Cheikh Tidiane Dièye de l'eau et de l'assainissement keneen nañu dimbale ci Médina Déckou yi ñu am teen ñu raccordé ko ñu naan Médina Déckou yi amul problème mu set d'eau Médina Déckou yi amul problème mu enceinte fu fu ñu war a def euh, matériel bi Médina Déckou yi amul problème mu réseau Médina Déckou yi mu ngi am problème mu teen boo xam ne bu ñu ko kasee Flexo mi nga xam ne mooy yor exploitation exploitation ndox mi mu raccordé ko ñu naan. donc je les appelle à ce que ñu jàppale ñu te it ñaareel ba. Mm-hmm. danaa ko wax loolu. Mm-hmm. kenn mbir de déggu yi ñu fal Diomaye ci la bokk le président. ñu ko fal ci lañ bokk. pour cent nag. te incha allah rabi dinañ góorgóorlu ba lii di ñëw ñii ñu jël mooy les élections législatives ku ñu jox la majorité bu ñu mën a liggéey tranquillement notre Sénégal. parce que gis nañu bi fi ñu déparé. ñun sommes les Sénégalais lambda les journalistes ñun lañ war a ñëw di laaj ñun les Sénégalais ñun lañ war a di laaj les réalités du Sénégal mais on sait que ne c' est dur mais sur la bonne voie. te dëgg nag ñeme nañ ko. te dëgg bu la xañee lu mu la xañ rek lu mu la xañ. Mhm. c' est parce que dëgg. daal bu ñu ci nekkee faw ñu am résultat te bu dee Sénégal dëgg gi nga xamante ni ñoom ñi ngay taxaw di ko wax doomu aadama yi te muy dëgg moo tax ñu téye seen signature yoboo nañ téye seen signature mais ñun ñu dimbale rek suñu forage bi ñu am dox bu ñu amee ndox yàlla xam na ne état bu ko neex bu mu def dara mbir na diggu yi danañ danañ danañ danañ bay suñu oom créé suñu yëf liggéey suñu wopp ne bu njëkk ba dañ ko daan def suñu yónnee wutoon ci dara dañu am béy suñu kaani béy suñuy jaxatu waxuma dara mais alimentation bi sax daan baax wérgu yaram bi euh, le sage-femme bi nekk màkk yop mu ne Médina Gouye depuis seen forage bi paan ba tey seen dox seen xale yi dañu woyof mais jamono yi nga xam ne ñu ngi béy xale boo fa yóbbaan peese ko dafay diis am poids am santé mais instant bi problème bi day am muy ci mag ñi muy ci gone ñi ci ñëpp surtout ci poos yi. merci beaucoup waaw te mënuñu mënuñu mënuñu dem mënuñu dem def leneen. lu mooy loolu. merci beaucoup waaw. jërëjëf Ahmed Ba li nga xamante ni la ko expliqué euh, fa la ñuy tëjee tey li nga xamante ni moo di sunu actu commentaire bi euh, ñi nga xamante ni ñoo toog tey euh, di président Diomaye ak ñi nga xamante ni ñoo ànd ak moom di liggéey ku ci mel ni premier ministre waaye itam ku ci mel ni ki nga xamante ni moo di Cheikh Tidiane Dièye jëwriñ ji ñu dénk wile wàll na bàyyi xel li nga xamante ni moo di wile askan ndax kat liñ laaj nekkul loo xamante ni lu mënul ñàkk la parce que dafa doon xamante ni ndox la ndaw ñu toujours dañ doon intéressé wu di toog ci seen dëkk parce que amoon nañ fay activité yoo xam ne ñu ngi ko fi mëne depuis ñu am problème ndox bi ba léegi ndaw daf fi war a noor du fi mën a noor parce que amul lu mu def bu fi toogee day obligé dem Dakar di taqale di wuti leneen loo xamante ni moom lay fàggu ci wala boog tam ci yeneen dëkk te loolu jàpp nañ ne bokkul benn yoon ak li nga xamante ni mooy avancé ab dëkk li woote mooy euh, autosuffisance euh, alimentaire boo xam ne moom la ñu bëgg ci réew mi loolu pour ñu def ko il fallait que ñu dooleel dëkk yu ni mel euh, bàyyi leen xel bu baax a baax amaana kilifa yi fi nekkoon ci wàllum politique peut-être amaana taxawaay bi ñu amoon wala boog tam gis-gis leen am doon na wutee ni moo di liy avancé aw ak itam liy avancé aw ak aw dëkk mais lu ni mel liñ bëgg mooy ministre bi ci boppam jotal ko boppam waaye itam moom ci boppam mu jël ko en euh, ci bi ñuy jot a toog bees nag ñun ci suñ bopp jot nañ ci ci ñi ñuy liggéeyal ci ñi bokk ci Pastef woo nañu laaj ñu directement que ne euh, ndax jafe-jafe bi rek la euh, ci boppam moo ko laaj mu ngi tombé jouru passation de service ndax lu ni mel réglé nañu ko wala déet ñu xamal ko ne ko réglé gul kon jàpp nañ ne peut-être mbir mi yegg na ci seen ay nopp maanaam tàbbiwul ci nopp tëx loolu lañ ciy bañ mais nañu góorgóorlu ba nga xamante ni danañu wut solution ci li nga xam ne moo di jafe-jafe ndox bi nekk fii nga xamante ni moo di Médina Gouye pour leeralaat nekkul benn dëkk boo xamante ni feneen la waaye mu ngi ci département bu Koungheul waaye tam nekk ci région bu Kaffrine euh, loolu jàpp naa ne doon loo xamante ni lu leer la waaye comme ni mu ko waxee nekkul rek loo xamante ni benn dëkk bi la impacté mais dafa am yeneen i dëkk yoo xamante ni seen dund wala boog itam seen ndox bañ doon utiliser fii lañ ko doon jëlee kon euh, jëwrin wala boog itam kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu tey réew mi nañ ci bàyyi xel que ne ñàkkum ndox li muy impacté lool parce que nit ki bu ko amul bu amul bu sell bu muy dundee euh, jàppal ne wér-gi-yaramam tàggoon ak moom waaye tam sago si boppam sax ndax gono ak moom waaye itam dafa nekk itam dëkk boo xam ne dëkku diine la ndax ci fàttali jaaree ci sax nuyu ziar xalif bi euh, Serigne Modou ñu ngi koy ziar bu baax a baax nekkal fii Cheikh El Hadji Adama Top bi nga dëkk la la dëkku alxuraan boobu dafa euh, euh, ba ci set gi muy soxla jàpp ga muy soxla pour def ay jaamu yàllam yooyu doon loo xamante dañ ko ci yittewoo te itam dañoo doon ay dëkk yoo xam ne pour que état jàppale leen dañ ci war a taxaw baax a baax parce que bëgguñ di jàmbat bëgguñ di joytu bëgguñ di yooxu euh, ñooñu boo nekkee ak ñoom dañoo doon askan woo xam ne wu dal lañ wu am patience lañ waaye nag euh, patience googu warul doon lor boo xam ne day tegu ci seen kaw am nañu mbégte tey bu baax a baax déplacement bi xam ne def nañ ko waaye itam mu doon warugar Ahmed Ba maa ngi jégalu ndaxte da nga wax foo xam ne dama ko fàtte woon mhm. dem nañ fii def suñu mbir ba pare na ko sëñ bi ñun dañuy dem ba ca national une bi baare ko pour jooytu mhm. mu lànk ay ñu mhm. mu ne ko national une bi ñu fay jaar dañuy dox seen soxla mhm. dañu am seen i yitte duñ fa dem mukk ñu naan sëñ ci aada ñu ko def tere naa leen ko keroog ba nga ko waxee lañ ko tëral ci suuf donc loolu moo lay wax ne c'est un village discipliné te depuis loolu ba tey jii man de à ma connaissance musuma dégg koo xam ne xel sa xel xalaat na dugg ci gaal yi nga dégg ci suicide bi nga dégg kenn kenn xalaatu ko kenn xalaatu ko ñëw nañ toog xale yaa ngi fi di bay mhm. bu noot jotee nag comme lii ma la wax mhm. nga amul ci luñ jàpp ñe dañ dem dañ dem Dakar di fa ñafe waaye bu nawet jotee gone yëpp a ngi fi mhm. àll bi bay nañ ko rek muñ ci mën a génne mooy que ne ñu dimbale ñu si bi voilà ñu dimbale teen bi sëñ bi maanaam li nga wax ci torfkalla mm. buggut a xatal kenn lu ñu wax mooy nañ toog ñu jaarale ko comme ci yii mu gën a ñu expliqué suñu waaye di dem di bari ay tali ay sàngal mi ñu fekk ñu koy wax ci rajo bi loolu tey ji suñ ci àdd moo fi ne tey mm-hmm. bu dee déggal nañ ko nañ ko bàyyi te keroog lañ ko tëral ci suuf ba tey ji may wax ñu nga xamante ñu ñooy bàyyi xel Arafat euh, TV ñoom itam ñu gën a bu baax baax waaye itam lu nu mel itam ñu partagé ko parce que nag euh, jub jubal jubbante

la seen leader jox leen dig daje ëllëg incha allah ci feneen ak leneen jaa ngeen jëf